ñëw leen ñu dem lew naña seen ziyaare ji ziyaare xalifa woote na uy ji leen ko leen ñu dem lew naña seen ziyaare ji ziyaare xalifa maam xalifa woote na uy ji waa Sénégal ñëw leen seen ziyaare ji ziyaare ji mam xalifa woote na uy ji leen ko ñëw leen ñu dem lew na ña seen ziyaare ji ziyaare mam xalifa mam xalifa woote na uy ji leen ko ziyaare ay mbiram de mooy ziyaadatu ziyaadatu doleeku mooy li gën sakku leen ko ñëw leen ziyaare maam xalifa maam xalifa woote la wuy ji leen waa Sénégal ziyaare ay mbiram de mooy ziyaadatu ziyaadatu doleeku mooy li gën sakku leen ko talaat ci suñ tariixa bi te adumu jotu mu war fugulu leen ko ñëw leen ñu dem lew nañu seen siyaare siyaare mam xalifa mam xalifa woote la wuy ji leen waa Sénégal war na si kuy jullit mu wuy ji woote ba ne woote ba rawatina tijaan bi sellu leen ko ñëw leen ديار مم خليفة مم خليفة وعدنا ويجي لندو ورنس كل جليت مويجي وتبا رواتنا تجان بسلو لنكو لولن دم لولا نسل زيارة زيارة مم خليفة مم خليفة وعدنا ويجي لندو وسنغال كوهم قرم

na reera utuba mam xalifa woote na wuy ji leen waa Sénégal bay Seex Tijaan xalifa Ñas de woote na de woote na ku ñëw mu faj sa aajo seeti leen ko bay Seex Tijaan xalifa Ñas de woote na ku ñëw mu faj sa aajo seeti Seex Tijaan xalifa Ñas deewoote na ku ñëw mu faj sa aajo seeti leen ko ba Seex Tijaan xalifa Ñas deewoote na woote na ku ñëw mu faj sa aajo seeti leen ko aja def leen nii ne ba Seex Tijaan xalifa Ñas deewoote na ku ñëw mu faj sa aajo seeti leen ko naa ñu ñëw mu faj sa aajo seeti leen ko ci ziyaare bi ku fa tardé na ñépp ñëw incha